asalaamaaleykum mbokki àddina rawatina mbokki Sénégal waaye rawatina diwaanu Njàmbur ak li ko wër euh, bu ngeen ànd ak leeral TV ak leeral point net fii ci bergerie Mouhamed Fall lan moo fa am ñu ni xar te ko wax xar ku wax tabaski wax xar incha allah bergerie Mouhamed Fall nag mi ngi fii ci Louga waaye soo ñëwee ba ci monument bi jëm tali bi jëm Dakar wala Potou ci sa ndeyjoor ci miir bi foofu la xar ya nekk am na xar kuuy am na ay tàppanga loo yor ci sa poche mën nga ci am xar boo ñëwee fii ci bergerie Mouhamed Fall. wala nga woo Mohamed Vall ci 77 206 53 53 ku wax tabaski wax xar kon nag mbokki njàmbur mbokki Louga eh, xéewal ñëw na ci bergerie Mohamed Vall ke ku ne mën ngaa jug ngir ñëw ci bergerie bi am fa xar mi nga soxla mën koo tabaskee yàgg sa njaboot kon nag mi ngi noonu monument bi jëmal tali Dakar bi mur bi nga njëkk a jot dugal ci biir miir bi am na fa xar yu am solo Mohamed val bergerie moo fa nekk. woo ko ci 77 206 53 53 tabaski jàmm. na ay nga loo yor ci sa poche mën nga ci am xar boo ñëwee fii ci bergerie Mouhamed Fall wala nga woo Mouhamed val ci 77 206 53 53. ku wax tabaski wax xar kon nag mbokki njàmbur mbokki Louga eh, xéewal ñëw na ci bergerie Mouhamed Fall ke ku ne mën ngaa jug ngir ñëw ci bergerie bi am fa xar mi nga soxla mën ko tabaski yaag sa njaboot kon nag mi ngi noonu monument bi jëmal tali Dakar bi mur bi ngay njëkk a jot duggal ci biir miir bi am na fa xar yu am solo Mouhamed val bergerie moo fa nekk woo ko ci 77 206 53 53 tabaski jàmm incha allah bergerie Mouhamed Fall nag mi ngi fii ci Louga waaye soo ñëwee ba ci monument bi jëm tali bi jëm Dakar wala Potou ci sa ndeyjoor ci miir bi foofu la xar ya nekk am na xar kuuy am na ay nga loo yor ci sa poche mën nga ci am xar boo ñëwee fii ci bergerie Mouhamed Fall. wala nga woo Mohamed Vall ci 77 206 53 53 ku wax tabaski wax xar kon nag mbokki njàmbur mbokki Louga eh, xéewal ñëw na ci bergerie Mohamed val ke ku ne mën ngaa jug ngir ñëw ci bergerie bi am fa xar mi nga soxla mën koo tabaski yaag sa njaboot kon nag mi ngi noonu monument bi jëmal tali Dakar bi mur bi ngay njëkk a jot dugal ci biir mur bi am na fa xar yu am solo Mohamed val bergerie moo fa nekk woo ko ci 77 206 53 53